nag ku ne xam na ni dañu xëyoon ci suba dikkaat si dëkk bu sell bi ginnaaw bi nga xamante ni sëriñ mun Mountakha joxe woon na ndigal bi ñu umee ba noppi ñu waroon a jàppale ñi nga xamante ni ñoo nekkoon ci jumaa yi ma tàmbali woon ko tey mu nekkoon deuxième journée boo xamante ni war naa ko defaa jëme ko si population bi mais ginnaaw bi nga xamante ni def nañu ko ci lañu xëy nag ni war nañu xool yi nga xam mooy sànc yi nga xamante ni Macky sàll moom la def ci dëkk bi ku ne xam na ne heure bu ñu masaa taxaw assemblée nationale dañuy wax askan wi nga xamante ñoo ñu fal waa Touba ak département bi ni leen Macky Sall mi nga xamante ni maanaam moom ngeen fal jox ko seen baat cër bi mu war a jox Touba jox ko ko la mu war def Touba tamit defu ko ma dégg fan yi si ginnaaw ku ñu wax Abdou Bali wër ay chantier wax ni Macky sàll lépp baax na jàpp naa ni kooku day nelaw te jaay askanu Touba ngir intérêt boppam tamit wëru ko te jàpp naa ne aussi moom Abdou Bali moomu warul jéem a feeñal chantier état bàyyi chantier si Ahmadou Bamba bett na tamit waa Touba. loolu moo waral ginnaaw bi ma demee ci xalifa général des mourides ko ba noppi ma wër askan wi wax leen li nga mooy li xew ku ne xam na ni assainissement bu Touba man mii di wax a yow ci mission bi laa bokkoon. tey président Macky Sall dafa ñëwoon Touba wax ni sëriñ bi dinaa fi def maanaam deuxième corniche boo xam ne dana nekk deux fois deux voies am assainissement am éclairage public kon na gis na ni jaar nañ fa tey moom la njëkk suñ première étape fan tàmbalee woon fa la ñu yem ba fii may wax a yow amul assainissement amul éclairage ba pare benn vaa la kon jàpp naa ne Macky Sall la mu waxoon ak li nga xam moom la ñuy def wuute na te sànce yi dafa taxaw ba fi may wax a yow am na sax ay nit yoo xam ne faatu nañu ci biir sànce yi yoo xamante ni dañoo daanu ci ay pax yoo xamante ni dañ leen faatu ci ay paa yoo xam ne dañoo war a dem julli ji yaakaar naa sànq Macky Sall rey na fi doomu aadama fii si dëkk bi xale yi nga xam ay xale yu ndaw lan yoo xamante ñi ngi si biir dëkk bi mënutu ñoo fo ngir sànq yooyu noonu ba tey dafa bloqué te xaalis bi kenn gisatu ko ñaareel bi ku ne xam na ni ONAS am na ay bassin rotation yoo xam ne tabax na ko fi muy premier bassin rotation bi nga xamante ni Ablaye Wade moo ko fa defoon boobu jamonoy Ablaye Wade deuxième bassin rotation bi mooy nekk POFDI mooy POFDI mooy bassin rotation numéro 2 bassin boobu noonu ñàkk nañ si 1 milliard 900 millions fi may wax ak yow dañoo fekk maanaam ay kàmb yoo xam dafa doon tibb suuf ñu miir ko wërale ba mu fi doon nii miir yaa ngi bëgg a daanu ndax suuf si dafay lekk maanaam li nga xam ne mooy miir bi ndax ndox mi bu tawee ndox mi day génn si biti kon xaalis boobu noonu war nañoo demande pour ñu auditer ko ku ne xam na ni boo demee ndaamaatu tëli bi nga xamante ni tey moo jógee gaar bu ndaw wuti hôpital bi depuis ñetti at a ngi ni sere jaaru fa oto jaaru fa nit jaaru fa loolu yaakaar naa waroon nañ ko mën a wane Abdou Bally bi muy dox waroon ko mën a wane tey population soxla ni boo demee aussi Ndamaatu wetu kër ma dikka na benn chantier boo xamante ni mooy station pompage la woon boo xamante mi ngi nekk coûté na foofu état bi 181 millions 576 mille 240 francs mooy bassin boobu mooy zone pompage boobu noonu station pompage bi station pompage bi ba fi may wax dafa bloqué ndax ni ñu ko waroon liggéey liggéey wuñ ko te fay nañu entreprise bi xaalisam boo demee beneen bassin rotation beneen station bi nga xam mooy station pompage bi nekk wetu kër Serigne Bass Abdou Khadir boobu tamit ku ne xam na ni mook bassin mook bee ñoo tolloo même prix mi ngi nekk 181 millions 576 mille 240 kooku sàcc la àllu réew mi ndax ñaari appel d'offre ñaari marché yu bokkul benn boo xamante ni fa lañ ko war a liggéeyee yaakaar naa ne war na am loo xamante ni ay montant yu wér la mais ku ne xam ne ñaar yooyu ñoo bokk même montant te boobu dañoo waxoon dañu am ay pompas dañu am tamit groupe électrogène fi may wax yow amul groupe électrogène yi ba pare wax na ni fay nañu waajooju kon jàpp naa ni président Macky Sall war naa xoolaat xaalis boobu mu génne ak waa ONAS lu tax ñu fay kooku te ba tey ay groupe amu fa boo ñëwee fi nga xamante ni tey bu fa jógee ma ñëw fi nga xamante ni mooy hôpital bi hôpital bi nag ab taxaw seet ak jàngat bu rëy rëy lañ si war a def man mii di wax ak yow maa taxawoon assemblée nationale wax ne dañoo détourné xaalisu hôpital muy première trace bi ay kilifa détourné ko lekk xaalis boobu président Macky Sall jëlaat intention pour ñu àggale ko muy ay digal yoo xam ne digoon na xalifa général des mourides mu wax ni 42 milliards francs CFA la ñu wate ko assemblée nationale mu wax ni maanaam mois de mars bi ñu passé hôpital dana ubbi ba wala boog benn pàcc mooy ubbi mais beneen bi 42 milliards lañ wax te gis naa Abdou Bali wax ni 35 milliards léegi différence 7 milliards yooyu maa ngi interpellé Macky Sall moom mu xam 7 milliards yooyu fa la dugg ba xam Abdou Bali dafa tuutal li nga xamante ne moom la Macky Sall waxoon wala dañoo sàcc xaalisu askan woowu noonu bëgg naa ñu wax ko askan wi leen yi nga xamante ne mooy sànc yi nga xamante ni comme ni wax ci mbiru assainissement bi am na si ay entreprise yu fi nekkoon yoo xamante ni tey dañ leen a fayul moo tax ñu dàq seen entreprise seen emploi tëj maanaam entreprise boobu noonu ci assainissement Touba moo tax mu bloqué mënut a kon fi ñu toll nii may wax yow réew mi dafa tagga témbe réew mi dafa tumaranke njiit réew mi amul fu mu jëm fu baax destination bi ko Macky Sall jëmee du destination baax léegi nag il faut interpeller le président Macky Sall pour que mu arrêté xool ñi nga xamante ni ay ministres lam ak ay directeurs yi nga xamante du ñu wax dëgg te dañuy def ay mentir de lekk xalu askan wi pour que ñu ko te lu nu mu a gaaw nañu guqi bi nga xam ne moom la war def si assainissement Touba bi ak mu gën gaaw ko deful dana leen porte plainte yóbbu leen ci yoon ndax jàpp naa ni xaalis boo xam ne dañu ko wote ñun assemblée nationale génn ko bu mu jëm si population bu Touba waruñu ko détourné def détournement objectif wala ñu fay ko ay nit yoo xam ne seen sant yooyu àggul kon loolu tamit bëgg naa mu gën a leer leen li nga xam moom laa si waxaat mooy la situation réew mi fu mu toll ku ne xam na ni réew mi am na ay jafe-jafe mbirum économique économie dafa daanu mbirum santé santé bi baaxul mbirum li nga xamante ni mooy suñu mbirum sécurité ku ne xam ñu ngi góor góorgóorlu waaye ba tey des na jàpp naa ne loolu lépp tey président Macky sàll waroon na see mën a taxaw ginnaaw bi ñu ko falee juróom-ñaari at falaat ko juróomi at mu def ñaari at war a des ñetti at nekk di nekk si àll bi di taxawaalu di fo di puukure dajale ay xale yoo xamante ni xale yooyu say parti la ñu bokk nga leen di wax loo xamante ni du njariñu askan wi loolu war na fee dakk man nag fii laa dëkk si Touba li fi sëriñ Touba def muy Serigne Mountakha ginnaaw bu ñu ko ñaanalee mu yàgg fi te wér xaaj ba xaajaat bi def defu ko fi te man wane sànc sëriñ Touba yu àgg moo ma gënal foofu noonu wat sànc Macky Sall Abdou Bal na arrêté li muy def. bu mu jël maanaam askanu Touba bëgg ko jënd Macky Sall Macky Sall mi ko yónni si ay màggal muy dem di ko yónni si ay siyaare muy dem di ko yónni si ay dëj muy dem bañ na ko ba léegi day tiitroo sax ni man ministre conseil Macky Sall la léegi tiitroo sax ni man sëtu Sëñ Touba la kooku dafa ñaaw ci réew mi Macky Sall wurta yónni doomu Serigne Cheikh Gaynde Fatma ndax ñi mu wut a yónni Serigne Moustapha Ndiagne muy Serigne doomu Serigne Mbacké Soxna Lo pourquoi ñi mu ko yónni xam na dignité am ak personnalité am pourquoi mu yónni Cheikh Abdou Bale muy muy jël loo xamante ni tey jii moom lay jël di dem di wone dara jaal di yokk yokku maqaama Macky Sall ba bàyyi Serigne Touba tan dénk ko li nga xamante ne moo jëm ci euh, kaddu màggalu Touba gi kooku yaakaar naa ni maa ngi wax sëriñ bi di wax Serigne Bass Abdou Khadir nañu dindi li nga xam ne maanaam moo yor communication màggalu Touba gi